asalaamaaleykum ñi ñi mbokk yi ñuy seetaan tey nag ñu ngi fii Touba ci kër Paate Jaxate ñu ñëwoon mu invité ñu ci màggalu sëñ Abdou bi nga xamante ne moom lay def Touba mu invité ñu ñun waa Agir ensemble pour notre avenir ñu ànd ak benn délégation boo xamante ni président bi man Pape gallaso Sow maa ngi ko jiite ànd ak ñi nga xamante ne ñoom laa àndal ñu ñëw ci bis bi bis bi nag bude dañ fay ñëw seet si Pathé ci invitation bi mo am ñaari aspect xol si ki nga xamantene mom moy suñu leader ki nga xamantene bañ ko parrainer suñu bis bi mu japp ci ak léegi liggéey yi nga xamantene mom lay liggéey mu am solo tañ ko doon waxtané biñ ñëwé Touba fekk nañ ko fi tay ji biñ ñëwé Touba fekk nañ ko muy liggéey liggéey bu am solo ci liggéey yoonu Serigne Touba bi ndax tay ji fekk nañ ko fi muy def bernda yo xamantene kéemaane na mooy yi nga xamante ne moom lañu leen wan noonu ci film bi berna yu am solo ak ay xéewal yu am solo mu jël ko def ko ci oto yóbbu kër sëñ Abdou bi nga xamante ne bi ñu fa demee sëriñ bi waxtaan ci wane ni ba mu ko dalee def yàgg na am na ay 10 kon tey jii bokk na ci li nga xamante ni moom la ñu gis beneen bi nga xamante ni tamit gis nañ ko ci kër gi mooy bëri na ay kilifa yu fi ñëw mooy ay jànkat kilifa diine kilifa aada ak ñu yor ay nomba tànk ci réew mi yi nga xamante ni séq nañoo moom kóllëre séq nañoo moom saafonte séq nañoo moom defalante boo xamante ni Paate Jaxate moo ko séq ak ñoom ñun nag waa agir ensemble pour notre avenir yàlla ba mu dogalee Paate Jaxate boobu ñu xam ko à travers son frère muy Cheikh Jaxate mu jàppale ñu liggéey boobu mu doon def ci Touba dañoo gis ni rafet na lool muy liggéey boo xamante ni dina dimbali ay nit te du ko wax di jàppale ay nit te du ko wax di jàppale ay mbokkam te musu koo wax di jàppale ay am di jàmmam te musuñu koo wax kon loolu lañ bëggoon a indi Thiès biñ saafonteeg moom lëkkaloo ceeg moom liggéey ceeg moom biñ ko indee cees di ko waxtaanee xëy na ñu yaakaaroon na ñu bëri xamuñu ko ndeke paate moom am na ay mbokk Thiès yu yaatu xëy na yàlla dafa dogal mu nekk nit koo xamante ni dafa effacé nit koo xamante ni buggul tele nit koo xamante ni buggul defal nit di ko wax ak ñi nga xamante ne ku ñu may dara lu ndaw ne ñoo ko may dara ku jàpp sa loxo ba ngay egg fa nga jëm ñu ni diw ñoo ko defar koo xamante ni taxawal nañ la bañ jàpp la wala ñu fal la mu ni kii maa tax ñu falu kon kooku moom mooy Pathé Diakhaté mi nga xamante ne moom lañ seet si tey jii Pathé Diakhaté mi nga xamante ne mooy suñu parrain Pathé Diakhaté mi nga xamante ni bi ñu xoolee ba ci biir ku jege président Macky Sall la koo xamante ne président Macky Sall jox na ko liggéey mu liggéey ko liggéey yu rafet ku jàppale président Macky Sall ci liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy liggéey kooku tey jii soxla nañ ko mu wax président ne ko mu jàppale waa Thiès ndax waa Thiès yi bëgg nañ ku leen jàppale te waa Thiès li ñuy jànkonteel am nañ yaakaar ne président mën na ci dara kon loolu bokk na ci li nga xamante ni dañ koy dox ñun nag waa agir ensemble pour notre avenir yàgg nañ ko wax li nga xamante ne moom la ñuy jooy li nga xamante ne moom la ñuy ñaxtu mooy Thiès jëm ca kanam képp koo xamante ni nekk nga ci Sénégal foo mënti nekk ci Sénégal bu dee mën ngaa apporter loolu Thiès dinañ dem ba ci yow fépp foo nekk jéem koo gis gëstu ko waxtaan ceeg yow ba loolu ñëw cees tey jii loolu bokk na ci suñuy mébét ñu ngi koy def ak nag doomu Thiès yi nga xamante ne ñoo nekk Thiès yëpp di leen tàllal loxo ñu ngi dem ci ñoom tey jii dem nañ koo xamante ni nekkul Thiès mu nga dëkk Touba mais moom Sénégal ko ñor def lu baax a ko ñor ku def ko dakaar def ko Touba. ku loolu ñor nag def ko Thiès defe naa te boo fa amee ay mbokk mu yaatu defe naa def ko Thiès du la wàññi dara kon loolu lu nga xamante ne moom la ñuy indiloon pour seedeel leen ndax wax leen ni leen nit ki kat soo ànd ak moom bëgg a fas yéene liggéeyeen liggéey ak moom dafa am loo xamante ne da ngay dem ba fi mu dëkk xool ko ci biir mbokkam xool ko ci biir këram fekk ko ak ñi mu toogal nga jéem koo gëstu loolu moom lañ fi jëlee tey jii ci Touba am ci kontante ak fierté ànd ak moom ci liggéey bi pour liggéeyal suñ Cees gi ñu nekk pour mu jóge fii am nañ yaakaar nag bu ñu lëkkaloog moom ba yàlla suturaal ñu ba nga xamante ni dara doxul suñu diggante muy seytaane dinañ gis Cees beneen visage boo xamante ni dina ko am fii ak ay fan yu néew loolu mooy li nga xamante ni am nañ ci yéene te ñuy tàllal loxo tamit bépp Thiessois bi nga xamante ni ak Thiessois boo xamante ni dégg na suñu message mu ubbil ñuy ay buntam pour que ñoo ñu ànd liggéey ndax li ñu tax a jóg mooy Thiès jëm ca kanam wasalaam rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa salim maa ngi leen di nuyu yow sëriñ Cheikh yaa xale yi nga xam ne ñoo nga may présenté ñuy xale Thiès masalaaw di am mbégte lool di sawar itam ci li ngeen may laaj ndax bu dee ci Pate Jaxate mi nga xam ne mooy sa mag ngeen di samay sang sama ndijaay jurleen leen te ngeen ko nangu ko lool te di ko rafetal macha allah yal na yàlla xeeb dolli yaakaar naa bu ma dee wax ci yéen lu ma ëmb ci yéen amul bi ci des mooy wàllu cees gi ngeen ma woo di ma ci laaj ma ci kontaante lool ndax cees bu euh, fekkoon ne dañoo dem tey jii dagg Thiès di ko séddale Fatou Diakhaté fa mu nekk ca Dakar kenn du ko ci ëppale man mii kenn duma ko ëpp wàll ndax loolu yàlla moo dogal ci famille bi ñu bokk muy askanu njaxate yàlla boolee ñu ci noonu ndax la nekk Thiès ci famille njaxate ci mag ñi comme li nga ko waxee sa waajur wa di sëriñ Daawda Jaxate yàlla na yàlla yokk leeram mujj dundam daanaka li ci ëpp lépp semaine bu nekk minimum dana yenn Thiès bu doon trois jours ci ni ko yàlla meloon ci bëgg mbokk ak nangoo sonn ci mbokk Euh, fa tabaarakallaahu te booba kilifa yi ñu nga fa nekk ndax booba yow xam nga ko sa pap Omar Jaxate alaaj Omar Jaxate nga fa ay njabootam nga fa lu dul jeex sëriñ Baara Jaxate mooy beneen magam bi kooku itam macha allah ay njabootam nga fa euh, beneen baara bi ndax dañuy ñaari baara te ñoom ñëpp joo seen ñaari yaay ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñëpp bokk ci famille bi moo tax ñuy wax baara bu mag ak baara bu ndaw ñoom ñëpp seen i njabootam fa te ay jàmbaar lañu liggéey ak jaamu yàlla lañu xam ak fonk bëgg seen mbokk nag paate lii muy def lu waaye doonul du dëgër waaye nit lu mu doon dafay yomba a dëgëral ci moom dama koy wax ne ko nañ doole sant yàlla ndax lii la yàlla sédd nga di ko def yàlla baaxal na la waaye mission boo xam ne suñu wajur wa di sëriñ daawal jaxate da ko aman bëggoon ci mbokk di ko def euh, yàlla dafa dogal euh, mu ngay taawam li mu doon nisar suñu borom di ko àggale ci yow loolu moo tax nan doole sant yàlla sëñ Daawda Jaxate dafa daan xëy ku yàlla wërsëgaloon la koo xam ne boo amoon ku xamoon lu koy naqari ci àddina lenn la mbokk bu ñëw ni ko nanga moom a yëkkati tey te fi nga ko fekk tey tey mënu ko faj tey boo ko waxee tey bu ko deful bu subaa foo ma nekk dina taal oto fekk la fa jamono yooyu bu xëyee li may wax cheikh mi bari na ci lu mu fàttaliku day xëy wecceeku ba poos yëpp pees poosu xaftaan yi yëpp pees jël sa foore ba oto départ dem Kajoor penc njaxate mu ne mu dem fu nitu njaxate ne wala ku mu dëkkaaleet ci mbokk jullit bu dikkee lu mu yor buy ñëw Dakar ngoon lépp da koy joxe ba mu jeex moom loolu la doon dund loolu ko yàlla defal ku yëg si këram laaj lu muy dox boo dikkee la mu ca dina ko def te yàlla tax te lu mu defal nit kenn du ko dégg ndax mbokk ci boppam moo ko ñoroon kon loolu paate su demee ba yàlla dogal jamono toll fii tey la waajur wa doon nisar di dem di ko fekk ci mbokk yi jamono yi bokkul paate fi mu ne ak njaxate ak macha allah li ci yàlla def ci mbarke mënul kenn ku ne mu waaxu dem fi yow waaye nag yàlla jox ni ko jikko joo xam ne suñu borom baaxee na ko ba képp koo xam ne yëg ne mu ngay sa mbokk jullit ngay mbokk jullit wala ngay mbokk deret luy sa yitte paate yëg ko dana taxaw ci faj ko ku mu xam sa jëm ak ku mu xam nag la la yemale loolu ko yàlla defal paate bañ na ko ba lu muy dimbalee lu muy jox doomu aadama loxo ndey loxo càmmoñ bi du xam li loxo ndeyjoor bi joxe du defal nit dara itam ba tiita doo ko mu damoo ko ne lii nangam ma tax ma def njàmbaar gi nag yàlla moo ko def ci moom yal na yàlla xeeb dolli yal yàlla defal ko wér xëcc fanam guddal ko lool ak noonu ku nu ko yéene ba fa mu bëgg mu àgg mu àgg fa te li nu doolee sant yàlla mooy li ko suñu borom defal ci wërsëg bëgg ko feye bëgg na lu muy def di ko def ci lu ngërëmu suñu borom ndax suñu borom léppam ci jaamam yi la ko def boo bëggee ci suñu borom dara da koy sàkku ci jaam yi ndax eh, yonent bi da wax ci hadiis nee na eh, benn jullit bu xiif nga jox ko mu lekk benn ci bu ñam mu lekk waxul mu lekk ba suur nee na kooku jaamu yàlla ñaata junni at lay tolloon julli yi ñu nangu te paate moom lu ko gën a neex ci àddina mooy doomu aadama ma ñëw rek mu teral la mbaa nga am bi si ñëw ma teral la man mii di wax ak yow toujours événement day am ci këru diine yi fu mu mënul dem man mii lay woo yëkki la muy jox jox ma kaay dem boo ma ak oto sëfoor demal boo demee teewal ma fa boo demee kilifa ga joxal ma ko lii mën naa la ko limal lu dul jeex te loolu sant yàlla la dama koy wax ni ko fi mu nekk nii mu ne ma ni ko eh, nan doole sant yàlla man ko bon doon woo ca ndaw rabin ba it dañuy ñëw usubaa ñu naa bàyyi góor a gis naa ko ca ndaw rabin ba waaye du tee foo ñu woo ñu ñu wusi la ko kon nag nañ sant yàlla bi nga xam ci lu neex yàlla nga ñuy woo lii ngeen li leen tax a jël itam yéen xale Thiès Thiès njàmbaar yàgg na fa surtout ci wàllu politique Senghor bi nga xam ne ay jamonoom boobu juddoo yàlla daf koy yeewoon loo xam ne mu ngi koy bëgg a créer ci politique Thiès lay def test bi bu réussir cees rek xam nañ loolu boo bu ko doxee dana réussir bu commencé Thiès rek bu laasee Thiès rek réussirul rek day daal di arrêté loolu ndax Senghor ku yàlla may jaam bu ne yàlla moo lay bind may la lim la may loolu ko yàlla defaloon te Thiès njàmbaar dafa yàgg ndax Thiès mooy xolu Kajoor ba pare Thiès mooy frontière Bawol ak Kajoor xalaat yàgg na fa njàmbaar yàgg na fa ba léegi loolu doomu ci man mi wax ak yéen. Euh, alaaj Demba Jaxate mii ma la doon wax ni soxna ko di Jaxate bu sëñ Saaliw mu ngi fii jànnatu mooy taawam mooy mag ci ay doomam doomam mooy sama aaw fi ne ni sama doom yi sët sii di mi la ñu ndax sii dég seen maama bokk benn baay bi ñu ñëw fii kër këram lañ jaar jànnatu sëñ Saaliw woo ko jëndee kees andi ko fii yóbbu ko ci daara ji mu yore daara la gan ba sëñ Saaliw wàcce ko defar kër jox ko ak i caabeem soxna ko dëkk si jànnatu loolu moo tax telee tax ndee bés bi daaw ko tàdd fii dem bi ma koy wallaame ne waxal sama jëkkër ji ne ko sa aaw bi xanaa tànk yi daa bon rek mu fase ko ne ko mënatumaa ñëw waaye sama wàll ci màggal gi day ñëw njàmbaar yàgg na Thiès euh, ñi ma la waxal ci kilifa yooyu noonu boo demee cees tey ji bu ñu demoon cees ba ngeen bëgg fa lenn lu ngeen bëgg a dox ñii juddoo Thiès di xale yi di ñoom am satumi ak sidi mi la ma mën a lijjanti Thiès mënuñu ko lijjanti ndax la ma fa xam xamuñu ko ndax fi mu ne nii ñii ma la wax ni famille bi quartier boo dem rek ci Thiès am na ku bokk ci famille bi koo xam ne mu nga fay sëy te njàmbaaru njaxate góor ñeeg jigéen ñi ñoo ci waaye nekk rek dama leen ne ku ci bokk rek foo nekk bu ñuy lim lu baax ja ci lañ lay boole kon li ngeen nekk na ngeen ci góorgóorlu jàpp ci te kii ngeen ñëw di ko seetse muy paate jaxate ngeen ñëw wéeru ci gannaawam incha allah waayam du ñëw waaye kaneen macha allah ndax xolam ci boppam njàmbaar gi doon na ko ba pare moom li gën a neex ci moom li gën a neex ci moom mooy moom dafa buggul du koo xam ni kii day jàppale président wala muy jàppale benn kilifa ndax ne naa wut poste wala naa wut lu ma dimbalee moom li mu bëgg li ko suñu borom defal mooy ku ne bu lay defalee dana jàppale ci li nga bëgg ba nga am ndam moom nga am ndam rek moom loolu mooy ndamam loolu la soxla seex mi toog nga xam ne ginnaaw yàlla tey ji ñi waaye juróom am ci góor ginnaaw paate seex a ci mag lii may wax moom mi xam na ko paate bu doon day wax président falal ma diw ba na ñu nekk ci Euh, état bi di ci liggéey waaye du di kenn kilifa defal ma nangam moom daal la soxla mu taxaw ca lu leen di jox ma nangam dina jël ay moyam jàppale la ba nga am li nga bëgg ye suñu boroom defal na ko lool ten teewaat fi déwén ak déwén jéeg waxtu wii daaw lañ fi taxawoon ñaan fekk waat ren ñoo ngi ñaanaat yàlla fekk fekkwaat déwén ay déwén di déwén waaw te nga bañ a men ndog euh, paate nag bàyyiwut mbokk ci kër ga bàyyiwut ab xarit bàyyiwut ab jarbaat bàyyiwut kenn ak i doomam ak jarbaat yaak Euh, am na ay bokkam yoo xam ne dañoo nekk kees mm. dégg li muy def ci Touba ak taxawaay bi mu def ci Touba mm. ñu dikk participe ci loolee doon ay mouvement yoo xam ne dañoo ànd ak moom ngir jikk li muy def ci Touba ñu parce que yéen ànd ak moom toppatoo loolu ba mu ñëw kees ñoom ñëpp teew si nañ ñu nga ca kër ga jëf ci jëf joo xam ne kenn mën lu ko wax di la ñaanal nag Mbàkke nga yàgg fi di am ak wér ah bu déwénee ñu def lu ëpp lii fuuf te fekk la fi waaw yokk na nag ba yëkk na yokk na te lépp yàlla sa jëm rek ak waaw xam na ki muy jëflanteel. ne sëñ bi ne sëñ bi xam na ki muy jëflanteel. Paate xam na ki muy jëflanteel. ne Paate xam na ki muy jëflanteel. الله ولا يبارك صمم من كان من كان انا صمم من كان من كان شيخ عبد الله الحاج ني سي عبد الله كين دوكو جامناني كين دوكو دير موي واي كين دوكو جامناني كين دوكو دير موي واي كين دوكو جامناني الله جيرف ليغيل كو فراسو لا نورو ناك ياخ واي غوبا كو ويت سيرين بي نك موم واو جارو باتي جارو مو نان سيرين بي واو واو واو يالا نكو في ياغ اندي ياغ لا في فك لا سيغ عبد الله تاني اك خادم واو ñoom la jëlal ngir yokk leen ci liggéey bi mooy lam doon wax ñoo dikk taxawu liggéey bi taxaw boo xam ne bii jógee Dakar ànd ak biis ba mu fees dell ñu wàcc leen barki dem ba tey paate yor seen lépp ah nee nag togg laa bëgg mu mel noo xam ne ni mosu ne mel jëf nañ ko it ndax liggéey baa ngi mel ni jërëjëf jërëjëf lépp sell na te soof jërëjëf jërëjëf tàllal leen amin amin Mbakke yàlla nañu fekk at yu bari آمين آمين آمين